rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun l'invité de la rédaction tey nag ay gan lañu am di ñoo xamante ne ñoom ñooy association sénégalaise des laryngectomisés euh, ou mutilés de la voix ñoo xamante ne nag ñoom euh, dañuy dund ak jàngoro ji nga xamante ne jàngoro yi larynx la loo xam ne ci baat la nekk bu la dabee da ngay ñàkk ca bakken ñi nga xam ne sax ab cancer la ñoom nag wetuñu ci plateau bi dañ ci ànd ak docteur Ngor Ndour moom docteur la nekk ca nekk ORL dina waxtaane ak ñun lu sosu si boobu la jàngoro ak lépp lu ko waral euh, ñu ànd ci ak sunu ay papa tamit waaye laata ñoo commencé waxtaan dañ koy dañuy dalal docteur bàyyi ko mu nuyu ak ñu ñuy suivre. ok merci monsieur Mbaye ñun aussi ñu ngi lay euh, fay euh, di la remercier tamit ci invitation bu ñu invité tey. man ak waa association sénégalaise de laryngectomisés et mutilés de la voix occasion bu ñu may pour ñu mën a discuter ak sénégalais yi lii di cancer euh, du larynx. may profité aussi du nuyu waale samay naataango yu mu mbokkal waxtaan bi du nuyu aussi euh, tout le personnel médical et paramédical du service d'ORL de Fann euh, may nuyu tamit mbokku internautes yi du nuyu aussi waa Sénégal yëpp merci. jërëjëf docteur nga jox kàddu gi sunu papa Isaac mu nuyoo ak ñi nga xamante ne. ñoo ñuy ñoo ñuy na dagg eh, maa ngi nuyu monsieur Mbaye yow mi ñu dalal di kontaan lool ci invitation bi parce que lii fulaan ngeen suñu madani bi ñaareel bi maa ngi nuyu le docteur yi nga xam ne bii dafa bàyyi soxlaam yëpp ñëwaat ak ñun ci bés bi nga xam ne bii moom suñu bés la. ñaareel bi aussi maa ngi nuyu ki nga xam ne kii moom mooy Oumar Ndour euh, Oumar Dione ci sama trésorier général euh, di leen nuyu yéen techniciens yi nga xam ne yéen dañuy yéen a jël waxtu ñuy wax euh, la la bon lu may waxal na la asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi di nuyu bare may commenter nag damay gërëm monsieur Mbaye mi ñu invité fii gërëm docteur Ndour mi nga xam ni moom la ñu mu bàyyi liggéeyam ñëw toog fii ànd ak ñun ci jataay bi di gërëm sama président Isaac Diop muy président de l'association sénégalaise des larmes automatisées et mutuelle de la voix di gërëm ñaari techniciens yi sama kanam. jërëjëf jërëjëf monsieur Dione waxtaan bi dañ koy dooree ak euh, docteur docteur euh, cancer du larynx mooy lan pour ñu ko xamul. ok euh, merci euh, cancer du larynx comme euh, nu ñu koy faral di wax rek cancer maanaam genre xeetu góom la donc cest à fépp fu mu mënta nekk mais bii nii day nekk ci lu ñuy wax le larynx. larynx mu nekk euh, l'organe de la fonation cest à fi nga xamante ne nit ki foofu noonu lay lay waxee donc euh, cancer bi foofu noonu lay juddoo te boo ko xoolee ci góor mooy maanaam projection bi ni ñu ko war a mandargaree mooy la paume d'Adam donc paume d'Adam bi nga xamante ne moom mooy feeñ nii donc organe boobu noonu moom la tuddaab tubaab di tuddee euh, larynx donc foofu noonu le cancer bi di juddoo mu mel ni genre góom nekk ci biir. mun hmm, nañ xam lan mooy indi lan lan moo koy waral mën nañ ci am Euh, d' accord cest à que li nga xamante ne moom mooy indi euh, un cancer du nekk rek euh, li nga xamante ne dañuy jàpp ne comme genre virus wala comme genre bactérie mais fii ci wàllum cancer dañu jàpp ne comme ay facteur de risque donc ay mandarga yi nga xamante ne bu fekkente ne nit ki da koy jëfandikoo bu yàggee cest mën na ko jural ay cancer donc fekkente ne nag dañuy wax ci cancer de du larynx lu luñ ci jàpp mooy ñi nga xamante ne dañuy tux donc bu fekkente ne da ngay tux di tux lu yàgg wala aussi ngay tux tux lu bëri donc tubaab da ko wax dose dépendant maanaam ki nga xamante ne dafa tux euh, ñaari cigarette ñaari paquet de cigarette par jour pendant une durée en tout cas longue moo ëpp ay risque ki ki nga xamante ne xëy na peut lu mu koy tux dafa neew wala aussi ki nga xamante ne peut-être tuxu ko deuxième aussi facteur bi mooy maanaam alcool ñi nga xamante ne dañoo jëfandikoo alcool donc mu nekk ñaari facteurs yi nga xamante ne c'est des facteurs synergiques donc tux bi ak naan bi cest à dañuy boole quand même seen facteur donc moo tax risque bi ci li gën a ëpp ñi nga xamante ne dañuy tux di naan ñu ëpp risque ak ki nga xamante sax maanaam day tux day tux kese mais en plus aussi de ces deux facteurs là. am na aussi yeneen facteurs yi nga xamante ni tamit jàpp nañ ne nekk mën na joxe aussi un cancer de de de de du larynx mu nekk yeneen profession am na profession yi nga xamante ne c'est des professions qui expose en tout cas le larynx mooy ñi nga xamante ne dañu utiliser plus la voix donc euh, seen profession lu ci ëpp yëpp ay voix bi lañu lañu lañu utiliser donc ñi nga xamante ne dañuy wax lu bëri donc boo ko xoolee euh, donc ñi les enseignants wala aussi peut-être les journalistes wala aussi tamit euh, les chanteurs wéykat yi nga xamante ne donc c'est-à-dire dañu utiliser seen voix donc au fur et à mesure ñu mën nañ dem ba def li nga xamante ne moom la ñuy wax des malmenage vocal donc ou bien un forçage vocal donc yooyu noonu irritation boobu noonu quoi de muqueuse laryngée bi da am donc au fur et à mesure mën a dem ba transformé wu à un cancer. mais en plus aussi nekkul rek ci ay profession yooyu noonu parce que am na yeneen profession aussi yi nga xamante ne mën nañ ko aussi tamit gis en fonction ci produit yu ñuy utiliser mooy maanaam ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci ay wàllu diesel ci wàllu aussi ay carburant wala aussi ci wàllu amiante. donc ay produits toxiques yooyu noonu ñu leen di koy ñu koy nooyi donc muy takk aussi ci nooyukaay bi ci ci larynx bi mën na dem aussi ba à un long à moment mu développer aussi mu jural leen un cancer de de du larynx mais en plus aussi ci facteurs yooyu noonu am na tamit aussi yeneen facteur mooy maanaam. Euh, ñi nga xamante ne dañu am lu ñuy wax euh, une infection à HPV maintenant infection HPV bi am na ci ay xeetam yi nga xamante ne bu la dalee donc mu infecté larynx bi bu yàggee tamit aussi mën na la jox un cancer du du larynx. ñu waxaat aussi tamit ci wàllum euh, alimentation bi parce que aussi ba léegi des fois dañ koy dañ koy dañ koy aussi gis mais ci alimentation bi bu fekkente ne dafa nekk euh, une alimentation bu nga xamante ne dafa bëri ay fruits wala mu nekk une alimentation bu bëri ay légumes wala mu nekk une alimentation qui est riche en vitamines donc alimentation boobu noonu mën na protéger sa muqueuse bi ba tax na peut-être yow pour nga am un cancer de la dina la xaw a jafe mais nag bu fekkente ne cest à ngay lekk-lekk yi nga xamante ne donc du am yooyu noonu am un cancer de de de du larynx mais en plus aussi na mu xaw a jàpp tamit ñi nga xamante ne ce sont des couches socio-économiques qui sont défavorables donc nga xamante ne c'est-à-dire seen doole aussi tolluwul noonu parce que bu fekkente ne sa doole tolluwul aussi noonu pour nga mën a taamu aussi li ngay lekk donc dafa commence aussi nekk un problème donc cest pour sa lekk bi mën a nekk une alimentation qui nga lekk ay fruits wala ngay lekk ay légumes ak yooyu noonu day xaw a jafe donc cancer aussi gis nañ ko ci ñi nga xamante tamit dañoo xaw a néew aussi doole donc yooyu noonu ay mandarga yi nga xamante ne cest à gis nañ ko ne bu fekkente nit ki da ko jëfandikoo au fur et à mesure mën na ko jural lu cancer du larynx. prise en charge bi docteur ndax ndax yomb na fii Sénégal. waaw cest dire que prise en charge bi moom euh, yombul parce que déjà comme nu ñu koy wax rek c'est-à-dire que c'est un parcours fi nga xamante ne c'est-à-dire que fa la ñuy gisee malade bi ak fi nga xamante ne peut-être fa lay nekk njeextalu euh, traitement bi. c'est-à-dire c'est un long processus donc malade bu bu ñëwee consultation ñu interroger ko laaj ko def ay analyse def ba gis na ne peut-être que kii dafa am euh, euh, suspicion d'un cancer du du larynx ñu demandé ko ay scanner demandé ko aussi ay bilan donc mu war a am ay opération après aussi intervention bi mu war a toog aussi service bi pendant ay deux semaines après aussi mu génn service cicatrice si commencé wër donc mu war a def aussi une radiothérapie après aussi par radiothérapie bi war a def aussi une rééducation orthophonique donc tu vois quand même c'est un long processus bi nga xamante ne cest process dire que processus bu ci nekk rek. ay dépense la cest à fu ñu toll rek moom malade bi dafa war a am euh, lu mu war a mën a dépenser ñëw consultation def un scanner def un bilan fay intervention bi fay scanner bi euh, fay radiothérapie bi encore aussi mu war a am une radiothérapie mu nekk euh, une charge bi nga xamante ne waaye en tout cas laaj na xaalis bu laaj na xaalis bu takku laaj na xaalis bu takku. jàngoro ji ndax say say say patient di nga ci faral gis ñoo xam ne ay ndaw lañu. waaw cest à que cancer dans la littérature daal di faral nag dal ay xele donc lu ci ëpp yëpp ñi nga xamante ne moom lay dal mooy ñi am plus de cinquante ans mais euh, wante nag gis nañ ci aussi ñi nga xamante ne xëy na amuñu sax ay ay quarante ans yu doon am ba jar quarante cinq ans yu doon te aussi am nañ ko. te des fois tamit nga gis aussi ñi nga xamante ne xëy na tuxuñu wala aussi naanuñu te tamit aussi ñuy am un cancer du larynx donc mu am tamit beneen facteur bi nga xamante ne xëy na ba léegi gëstu bi aussi peut-être war na war waneegu ko ndax jigéen ñi tamit am na am nañ ci am nañ ci wàll dinañ ci feeñ waaw jigéen ñi aussi am nañ ci euh, am nañ ci euh, dañ dañ koy dañ koy am parce que am na benn jàngat buñ ci def ci les dix dernières années au moins amoon nañ ci ay vingt cas yi nga xamante ne jigéen la dal donc ci ay dix dernières années ci côté aussi boobu noonu dañoo jéemoon sax di xool ndax lan moo ko war a mën a indi ci jigéen yi fi en tout fii ci Sénégal parce que sànq bu ñuy euh, énumérer li nga xamante ne mooy facteur de risque yi donc dañu doon wax na waxu taba la ñu wax waxu alcool te boo xoolee quand vraiment su suñu réew donc naam peut-être ay jamono yi nii da ngay commencer peut-être di ay jigéen yu tux mais en tout cas au temps jigéen daanoon di tux donc tey lan moo waroon jox suñu jigéen yooyu noonu tey les femmes sénégalaises ñi nga xamante ni tuxuñu ñu lan moo leen waroon mën a jox un cancer du larynx mais buñ ko xoolee ci suñu étude bi dañoo bëggoon étudier maanaam la la fumée du feu de bois donc parce que ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo saxaar saxaaru saxaaru këriñ ki ak saxaaru mat yi bi nga xamante ne moom la ñu toggee parce que ñu ci jot a interroger yëpp bi dañuy toggee ay mat mais ci durée aussi bu yàgg am na durée moyenne bi c'était trente ans. mooy jigéen ñi ko am moo jigéen aussi ñi ko am donc mu nekkoon trente ans mais nag euh, suñu corte bi cest à lim bi dafa xawoon a euh, néew tuuti ba mën a tax ñu jàpp ne peut-être que euh, saxaar boobu noonu mën na leen aussi ko jox mais. c'est quand vraiment une perspective bi nga xamante ne war ko aussi war a mën a gëstuwaat lu gën a yaatu pour aussi ñu xam moom jigéen yooyu noonu lan moo leen jox un cancer du larynx. gis nañ ni ko am ñu bëri bii door dañuy jàmbat baat bi metti wala seen baat sóol ak yooyu yëpp di ko nemmeeku ndax boo teelee dem hôpital yàlla mën na ci musal nga bañ a def intervention wala ñu dogale ko. waaw cest à que bu fekkente ne day euh, feebar ba dala dal dafa am ay signes yi nga xamante ne moom lay euh, moom lay feeñee donc comme aussi ni nga ko waxee tout à mu bokk ci siñ yooyu noonu lii di baat bi di suufee donc baat bi di euh, boo koy wax booy wax baat bi di du feeñ maintenant bu fekkente ne da nga teel ñëw aussi hôpital parce que feebar bi cest ci wàllum cancer. dafa am aussi ay classification yi nga xamante ne xëy na moom lañ ci def bu ñu demee ba détecté ko ba diagnostiqué ko donc dañ koy daal di classifier maintenant en fonction ci classe bi nga xamante ne foofu la feebar bi ko fu ñu leen ko diagnostiqué am na ay stratégie thérapeutique yi nga xamante ne sont adaptées ak classe bu ñëw bu ñu bu ñu bu ñu tolloo donc bu fekkente ne dañ ko teel a diagnostiqué mu nekk ay peut-être stade un wala peut-être au maximum stade deux yu noonu xëy na mën nañ bañ a egg ci opération wala aussi bu ñu opéré. du ñu mën a def ce qu'on appelle une laryngectomie totale donc xëy na mën nañ dindi rek juste une partie du du larynx. wala aussi du tax mu ñàkk voix wala voix bi day dem. waaw maintenant c'est-à-dire bu fekkente ne dañoo malaat bi par exemple dañ koo teel a gis tu vois mu nekk stade 1 ñu defal ko maanaam une radiothérapie exclusive donc li nga xamante ne du du intervention du opération mais radiothérapie exclusive lañ koy defal maintenant radiothérapie exclusive bu ñu ko defee bu réussir nit ki dina gardewaat quand vraiment bi. tu vois dina gàdduwaat aussi nooyukaay bi donc du jar ñu koy opérer maintenant bu fekkente aussi tamit dafa egg si maanaam ci ay stade 2 ñu opérer ko mais ñu opérer ko aussi quoi te opérer ñu ko defuñu ko laryngectomie totale ndax dañoo dindi rek une partie du larynx dans ce aussi tamit dina gardewaat aussi wax bi dina mën a lekk aussi te dina mën a naan te dina mën a nooyi sans pour autant mu nécessiter une intervention soit un laryngoscope ou bien autre donc moo tax ñu teel a ñëw. pour consulter baax na ci parce que au moins dina tax moom ñu mën a euh, yeneen intervention ñu mën ko def mu nekk aussi li nga xamante ne ça sera bénéfique pour ñoom. gannaaw intervention bi docteur euh, di gis nañ ne dina am lu mu leen bàyyil mais benn trou bu nekk ci baat bi léegi ñoom naka la ñuy dundee dundin bi naka lay demee ndax dina am benn régime bu ñu war a am ban comportement la ñu war a am ndax dinañ dem fu fu fu mbooloo di am wala fu poussière di am ban nekkin la maladie di am. ban dundin lañu war d' accord c'est-à-dire que euh, ci loolu noonu déjà euh, dina tax peut-être euh, voix bi du mën a leer noonu donc c'est-à-dire dina am altercation de la voix. un trachéostome qui est définitif parce que la larynx bi la ñu dindi. donc turi bu du dañ donc larynx bi la ñu dindi maintenant trajet bi ñu abouché ko directement ci peau bi donc nit ki léegi maintenant foofu noonu lay nooyee tu vois que ngelaw fa lay jaar ngelaw bi aussi fa lay génne ko donc foofu noonu mooy quelque sorte peut-être bakkan bi parce que léegi système bu nekk ci kaw dañ ko dañ ko dañ dañ ko dañ ko éliminer donc dañ ko éliminer mais euh, ñoom a chaque fois près dañuy am benn genre écharpe peut-être pour mën ko protéger. comme ça aussi xëy na poussière beeg yoon tamit du ci du ci mën a dugg quoi mais euh, li nga xamante ne xëy na tamit aussi moom moo ci gën am na benn euh, genre euh, des implants phonatoires yi nga xamante ne donc mënoon nañ ko cee def parce que bañ ko buñ koy opérer mën nañ ko ci utiliser defaale ko ci en même temps dina protéger trachéostome bi mais aussi en même temps dina mën a tax wax bi aussi mën a mën a leer donc mu nekk li nga xamante ne c'est beaucoup plus bénéfique. implant am na fi. implant yooyu nag amu amu fi. donc yooyu moom aussi amu fi quoi amu fi am jot nañ ci def service ay quelques cas mais benn don la woon benn benn don benn don la ñu amoon donc am na kaa yi nga xamante ne peut-être bu leen opéré en même temps na aussi installé ce matériel là ci biir baat bi comme ça mu mën a protéger trachéostome bi mais aussi en même temps mu mën a permettre aussi nit ki pour mu mën a wax. Hmm, docteur euh, docteur Ndour la woon ah, moom moo nekk fële ci service ORL ànd ak ñi nga xam ne ñoo fi teewal association sénégalaise des laryngectomisés ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñuy dund ak cancer du larynx bi euh, ñu ñëw ci sunu papa euh, John monsieur monsieur John Omar John Omar jàngoro ji kañ la la dugg. asalaamaaleykum jàngoro ji daal mi ngi ma dugg en 2008. 2008. waaw. ban ban année si même année bi nga def opération bi. Euh, euh, parce que temps boobu laay commencé di am problème de respiration. problème de respiration nga ko dooree. mais pour man du dara ma ne noo kaaw rek mu wér di dem m dem di dem ba mu yàgg mu taxaw ma continuer di dem. di dem ba deux mille douze mu daaneel ak ma dem ma daanelee nga xam ne bu may dox bu ma doxee ay deux pas trois pas rek sonn ma taxaw noppalu nooy nooy nooy baam foom doog a demaat di ko def di ko def ba mu yàgg ma ne di daal wóorul comme man. honnête euh, fan laa doon laa daan ñëw d'habitude ma ñëw fa bu ma ñëwee fekk dama jëkkatam santé le tabit ba mu ma da nga asthme dafa may médicament ma dem kër ga ma demee kër ga toog mu mel damay fàtt ma tëdd ci suuf nga mënuma noyyi. noonu mën a jóg toog toog tuuti toog espace bu libre boo xam ne bii ngelaw bi ñëw may ngaan di nooy affaire bi arrêté ma bàyyi noonu ba ba ci suba gi ma yeewu affaire bi fakkat ma ma delluwaat foofu ñu ne ma xaw ma ak ñu man sama doom bi maa ngi dem fan fekk ma fan ay di dag ma mais ma ko fekk ma fan waaye ma jël tàgge dem bu ma ñëwee ma dugg ci rek yóbbu ma eh, consultation ba ma ñëwee boobu mënuma nooyi duñ ma pour nga nooyi day foo ñu ba nga la fii de bonne intervention pour sobe la il faut ñu bënn la pour mu ne ñu bënn la fii pour nga mën nooy mooy mooy intervention bi ñu lay defal pour sobe. bu njëkk bi. bu njëkk maa ngi ko nañ dem maa ngi ko fekkoon docteur Pilor. docteur Pilor. voilà mu ne mën nañ dem di dem ba Pilor ñu tëral ma ma dëgg di def seen yooyu ñuy def mais biñ ma biñu. du ñu bëttee tubaab bi fii ci sama baat foofu laa nooyee nooyee boo xam ne lii dootuma ko fàtte ba ba may dee mooy bi nga bi nga bi nga opéré ba pare déedéet mooy boo demee ba affaire bi la dal xam nga nooy daf lay jafe léegi nag boo demee ñoom dañ lay bëttal fii hmm. comme ça léegi fii léegi mu ne bakkan bi comme ça yow ngay nooyee fii waraat buñ ko buñ ko ba tey defal la tamit ba ba mu te alhamdulillah rabbil alamin noonu la dalee jërëjëf ñu jox kàddu gi sunu papa Isaac papa mën nga ñu ñëw ak ñun jàngoro ji kañ la la daal ak nu mu la dikkee. waaw man nag dama euh, demoon war na ma demoon. ci ki nga xam ne kii mooy le professeur Lamine Sine Diop Lamine Sine Diop moom lañ tuddee pavillon ORL bu Fann au niveau de la DATEC fekk dama amoon benn taab buy ci làmmiñu ndaw bi mu metti lool moom nag mooma moo ko jëkk a dagg alors mu ko daggee mu ni ma defal très attention parce que tu risques d'avoir euh, le cancer waaw ma xam nga rek ma continuer toog lu yàgg taluma saban dama liggéey au niveau des produits phytosanitaires parce que produits phytosanitaires yooyu boo ci liggéeyee day am la matière active boo xam ne bi mooy dellu si. ci produits phytosanitaires yi doon liggéey. voilà parce que j'étais de la qualité au niveau local. technicien de la qualité nga woon de local voilà voilà ci biir ma ñëwee nag niveau de centre bërëb bi nga xam ne bi centre de santé hôpital la centre yu de niveau deux ou un mooy Youssou Mbargam benn boy la ba fekk un médecin qui était un élément ORM mu xool ni ma yow il faut nga def vaat ci laa ñëwee di mwenyewe ñujàñwasigo ngoo junni quinze a commencé nag les traitements ba mujj ji ñu opéré ba ma opéré daal ci la amee tan ci la amee tan wala la manqué ñàkkee poids bi mais pas totalement waaw maa ngi wax may dégg waaye lépp voilà appareil bi ma waaye c'est un laryngophone. laryngophone la appareil bi ñaata lay jar moom. appareil bi mi ngi jar quatre cent cinquante mille. quatre cent Sénégal fii am na fi wala bitim réew ngeen koy jëndee. kenn rek moo ko fi yor mooy benn naar. benn naar moom algérien. qui mhm. est moom moo ko fi yor distributeur rek la. mais France ñoom seen wàllu bopp du ñu defar appareil yi. France seen wàllu bopp du ko defar. non non c'est des distributeurs. seen association bi ñaata membre ngeen toll. nous sommes au moins deux cent personnes. deux cent mhm. seen appareil yi bëri na. non non non de dixième. même pas dixième. bu ko ñaar bu ko yoree daal. non mais parce que ñu ci bari ay retraité dañu. bari ay retraité parce que ay mag lay daal te. ay mag lay. ñebe bu la traité da donc léegi même ñun c'est la prise en charge on était obligé de passer par l'IPRES. par IPRES waaw IPRES mi ngi taxaw. waaw mais pas tellement. bu ñëwee ci côté société bi naka ngeen di dundee jàngoro bi ak doon wax ba jékki-jékki waxatoo. waaw lu metti la parce que boo demee sa kër bokkutoo ci benn débat. bokkutoo waaw lay yore sax. rawatina nag mbedd bi parce mm. que boo mënulee wax dañuy defen da ngay jaaxal doon dom rampo doon taalibe nga ko yarwaat waaye yooyu lañ nga boo bëggee waxaat nit sax mu daw ndax la la rengo fon bi nga yor voilà ma ngoog xamuñu ko xamuñu mooy lan loolu xam ne ñi nga xam ne dëkk nañu ak ku yor jàngoro ji ñun am voilà yéen xam ngeen ko médecin yi xam nañ ko mais mbedd mi xamuñu ko même xale saa bu la seenee nga yor te di wax day daw. mais docteur si si si yow la ñuy dellu si gis na ñoom ñaar ku nekk ni nga expliqué façon bi nga xamante ne noonu la la dalee mu mel ni ci takk dafay mel ni bëri na nu mën ni manifesté woo ci nit ban conseil nga jox nit ñi pour euh, ñu mën koo teel a moytandiku. ok euh, c'est-à-dire que pour ñu moytandiku euh, il faut faudra d'abord comme lu ñuy wax tout à l'heure les facteurs de risque yi donc ñu xam ko ñu bañ ko aussi jëfandikoo mais en plus aussi tamit euh, ñu def une prévention bi nga xamante ne mooy maanaam. bu fekkente ne dañuy commencer de jàmbat maanaam euh, baat buy suufee en tout cas parce que lu ci ëpp yëpp mooy premier symptôme bu nit ki di di nit ki di au moins ñu teel a ñëw hôpital comme ça lu ci mën a war yëpp euh, médecin bi dina ko mën def aussi comme nu ko Père John aussi waxee tout à l'heure mooy euh, boo toogee tamit moom ba dem ba feebar bi aussi gën a avancé ba dem ba ci dyspnée laryngée c'est-à-dire mu dem ba commencé aussi maintenant donc di di donc mu nekk une urgence donc moo taxoon comme nu mu ko expliqué donc yooyu noonu saa yi boo egsee service rek parce que dootoo mën a nooyati donc da ngay ay fan yi nga xamante ne une respiration excessivement difficile ngay fàtt gudd ak bëccëg donc moo tax bu ñu la ko defalee trachéotomie boobu noonu mu doon wax tout à l'heure ñu ubbi la fii nii nii premier ouf bi moom c'est-à-dire que <laughs> waaw da leen da leen di soulager quoi vraiment da leen da leen di soulager du ko. oui des fois da ngay gis sax ñi nga xamante ne ils commencent à dormir sur la table quoi. parce que tout simplement ils ont passé quand vraiment dañoo dañoo gis nooy dañoo gis nelaw. Mm-hmm. tu vois donc euh, donc pour eux que nit ñi au moins. Euh, ñuy en tout cas teel a ñëw quand hôpital bu fekkente ne dañoo gis na ne que seen baat bi dafa commencé di suufee et ça bu fekkente ne dafa dépassé ay deux semaines wala aussi tamit médecins yi parce que aussi comme nu ma ko wax tout à l'heure am na ci yu bëri yi nga xamante ne dañuy jàpp tamit comme asthme. donc prise en charge bi am ci li nga xamante ne des fois day nekk en retard parce que malade bi dañ ko doon jàppee ne comme quoi waaw voilà wala mu ne aussi ci wolof beeg yooyu noonu donc loolu yëpp c'est retard de prise en charge bi. Euh, ñu dellu si waat suñu papa Isaac parce que temps bi ñu am bëri bëri bëriwul li si des bëreetul léegi mu ñëw ci association bi ban lan lan mooy jafe-jafe association bi jamono ji. Euh, association bi daal euh, voilà parce que d'abord. nous, nous sommes une association d'entraide. d'entraide et de solidarité waaw. maanaam association bi dimbalante seen biir. dimbalante suñu biir ba. E, donc il faut que euh, ñu am des arènes bu fon. Euh, bu ñu bu ñu amee. bu ñu ko amee. moo mën a permettre dañuy communiquer. waaw loolu la. sax aussi wax nañu les facteurs yi la xam ni moom mooy risque ja dolli ci ñi nga xam dañuy dañuy ba ngeen ci boole awukaay. Eh, boole ci peinture kat yi. ak awukaay. awukaay voilà. loo eh, loo day waree ak lu ngeen moom. Mm-hmm. yàlla ko nattu. yàlla ko nattu ñun bu ñu noppee rafle. ngeen noppee rafle. ngeen léegi eh, gannaaw gannaaw problème moyen ban jafe-jafe ngeen amaat. deuxième problème moo di ñun les collectivités territoriales dañuy jàppalewul collectivités territoriales jàppalewul ñu leen maanaam voilà et puis ñoom ñëpp dañu am le volet social volet bi duñ dafa am ay budget yu dans leur commune respective mais duñu ñu di bëri ñaareel bi aussi nous avons écrit à l'ensemble des institutions yi jiite ay institutions yoo am alors léegi ay double yoo xam ne yooyu day uniquement destiné aux sociales et à la santé te duñu ko gis mm-hmm. jagleel bi aussi à l'autorité étatique parce que ñooñu bi ñu di e, borom réew mi nga xam ne moo jiite réew mi boog bu dul borom bi moo ko jiite daf ñu booleeg ministre conseil Augustin. Augustin donne pour avoir moyen de transport parce que ñun ay mag lañu ñu dox day jafe ñu laaj leen ay moyen de transport waaye moom mu jox ko ay instruction mais depuis loolu bi ne nañu ko ñaari lees gisuñu dara. ma tool na gaaw yi mhm. waaw yooyu yooyu ay difficulté lu yu mu wax euh, ñeel jàngoro ji nga xam ne moom la ñu dund mooy cancer du larynx xam naa docteur lu ñu amoon ci kàddu jox bu ndax amoon numéro boo xam ne mën nga ko wax ñu wax ko si kaw pour koo xam ne bëgg na jokkoo association bi wala ku leen bëgg dimbali ko wax nga ne am ngeen problème moom ak yooyu yëpp trésorier ñu bàyyi la leen joxe numéro bi ñun kay dañ leen di jox numéro contact bi waaw waaw sama téléphone. 78. 78 385. 385. 50. 50. 86. 26. waaw. lépp boo xam ne waaw bu ñu bëgg a jàppale leen wan volonté nga jox ko numéro compte beeg yooyu yëpp su ko defee ngeen ngeen ngeen ne ko temps bi temps bi moo ñu moo ñu xaw a njëtt xam naa damay damay bàyyi docteur rek mu def kaddu gu mu gi docteur soo soo soo ban kaddu ngay tëjee ak li ñu fi wax yëpp ci maladie bi ak yan conseil nga jox ni nga xamante ne euh, ñooy dundee ak jàngoro ak ñi dëkk ak ñi nga xamante ne dañuy dund ak jàngoro ji. waaw man léegi le problème qui se pose c'est que nous demandons aux bonnes volontés de l'État véritablement de de notre sort nous nous sommes des vieux retraités nous n'avons pas les moyens et nous sommes euh, à cause dégg de cette maladie là parce que boo jëlee bi huit cent mille francs da nga ko fay rek pour euh, traitement yi ngay def en français c'est ça donc je disais que le montant de la consultation et des soins se situe aux environs de huit cent francs c'est pas la portée de quel patient c'est pour cette raison que j'invite l'État le président de la République et ses différents démembrements qui ont des volets de santé dans leur rubrique merci merci monsieur Diop Isaac Diop moom mooy président association bi docteur ban kàddu ngay tëjee jotaay bi. ok xanaa euh, di la remercier rek ci euh, invitation bi comme ni ñu ko waxee aussi ci njëlbeen bi maintenant euh, ci lu jëm ci wàllu population bi xanaa wax ne rek aussi que nit ñi il faudra ñu am habitude en tout cas di teel a dem hôpital di teel a dem aussi fi nga xamante ne mooy corps docteur. bu fekkente ne sa à dire que da ngay jàmbat li di mel ne en tout cas lu jëm ci wàllu cancer du larynx nga am baat bu commencé du suufee donc bu fekkente ne sa à dire que da nga commencé jël ay garab wala aussi nga gis un médecin bi nga xamante ne xëy na du un médecin ORL bu la joxee ay garab. bu fekkente ne sa à dire que durée bi dafa commencer ba dépasser ay deux semaines il faut peut-être nga consulter un ORL mu mën la defal un examen spécialisé ñu mën a saytu sa larynx bi ba xam ndax est-ce que commencé woo da am un cancer du larynx ou pas parce que tout simplement dina tax ne prise en charge bi mën a yomb dina tax aussi tamit euh, euh, dépense aussi mën a wàññeeku maintenant ñi nga xamante ne aussi tamit dañuy tox wala aussi ñuy naan. fekkente tamit aussi mën nañ ko wàññi parce que yëpp ay facteurs yi nga xamante ne day tax na nit ki peut-être euh, mën a joxe un cancer du larynx donc loolu lañ bëggoon wax population bi. merci euh, docteur euh, Ngor Ndour moom mu nekk service ORR fële ci hôpital Fann ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak ànd yi mu àndoon ak waa association des laryngectomisés ou mutilés de la voix ñoom ñi nga xam ne dañuy dund ak cancer du larynx di sunu papa Isaac Diop ak Omar Dione ñu di jaajëfal ci invitation bi ngeen di nangul ak waxtaan bi ñu fi waxtaanee lépp. Libaas Mbaye ak euh, Mansour Dramé ñoo jàpp ci caméra yi ba mu yemb jàngeen jëf ba benn yoon incha allah.